Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Abdel alal ja rek la gis zul mi nga xam ne ñi nga jàpp di ko zul zul zul moom itam ni mel rek la mën a mel ndax ñu ngi wane ne xale du yaroom te. bokk na ci li ko tax li muy def mu def ko mooy wujj yaayam boobu yorewoon ko ko naxaral ba mu gis nga diw Jeanne bi ni mu te ñëpp dañu defe ne moom moo rey Jeanne day nu waar Abdal moom kenn waxu ay waxam salaamaaleykum salaamaaleykum série sénégalais maa leen di nuyu di Mamita noo def yaa ci jàmm laqalo Ahmadabi, <laughs> no def mane niyu fat lum mama fatu kamara <coughs> mama fanyang mama ngi kamara ñu leen ni amada xaali sama doomu ndey sama doomu bax ma lay nuyu di la ziar di nuyu wa ki asan sama papa Ibrahima ma ngi Muhammad nuyu Mohamed Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu wa ki waaw man xalaat naa ni foofu nga xalaate yande jinne mi xam nga yande moom jinnem bi leen ko tudde waaw faru rabam bi kii kay jinnem bi mu àndal man xam naa loolu la waaye mën naa ko dawal waaye man dama defe ne ndake dawal li ñëw ci moom comme lu demee ni accidenté wala leneen waaye du dee la koy kii fanqal waaw dina am nag lu ko tiis dina am lu ko metti man def moom bu dee moom bu dee du am sens waa mami dama déglu sa benn kii message nga ne aana soo moytu bu dee aana bu dee est-ce que affaire bi dina am sens parce que aana moom dafa mel ni moom ci actrice la de mooy ñi nga xam ne ñoo at théâtre bi man defee man mu dee de xëy na mu sonn wala mu am soog daal waaye dafa moom mu dee mais sénatrice bi moom dañ kaa war a def ràpp ci kasu gi mais Abdal moom kenn waxu ay waxam waaye wax ji mooy paa bi nga xam ne dafa naanoon doos xamu fi mu mujjee moom <laughs> nekk paa ne yow dangay amee doole vingt foog mu difficile ci moom day na waar daal Fatou Cissé maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàjjuwaay xam nga lu tax ma wax loolu mooy keene nu mu tudd di yaande noonu te te lu bari bu ko imaginer lu am lay gisoo mu koy na aana demoon ki ñibbi demal demal demal loolu moo tax ma xalaat loolu waaw mami ci loo nekk ça va ci non moom xam na ne rey ko de du ko rey bu ko reyee du am sens il mu bokk fi saa si moom mu ngi gasal kàmm ñam siyaara waaye moytu kàmm gi moom moo si duggu bu sonn ah Abdel is aje dootu ko topp comme mu toppee woon ndax Jules moo ko santoon Jules César moo ko santoon dootu ko defati dootu ko toppati jànq bi moom ak monsieur le moom moo ndax moom boo amee sa ñaari jabar doo gis kenn góor moom góor rek la ko toppatoo doon ay bëtam yow lay gis te macha allah jabar ci dëgg bon bi jekk na ndax da kaa war di toppatoo ñoom ak ku mënti dox am programme ko aaye da ngaa war a toog wala balaa heure jot nga duggaat sa kër waaw xaar ku na chaque jour xaar moom biir lu ne mën na xaar xaaroon des biir biir moom mënul xaar moom. mooy dëkk dama xamante ne néegu monsieur le maire bi jànq baa koy defar ngàppaaral koy mënta wees foofu dama yaakaar ne lépp nag ay jógu mbeng la mbeng xam naa daa bëgg monsieur ndax xëy na lu ko umukaasoom lu muy joué fii bu ay dëkk deeweeg yooyu soo ma loolu sax moo ko tax dévention di jigéen ñi moom la ñuy vendre ba pare toog na pat mais nag affaire bi garaaw man Abda damay ragal mu violé la ci kii mu violé instant yi bëggul lu dul doom ndax alal bi bañ koo rëcc waaye yal na dëgg bi gaaw a feeñ ndax aji xam lépp ñu tëj ko ci kaso bi. mais ba tey de Aïcha <laughs> Aïcha bandi la dégg nga li mu wax euh, ana nee ko mu ngi doxal moom ak waa ji. fatna turbi ko waa ji bëgg noon ki bëgg ana nee na ko ñu ngi doxal te mom pour toog ak moom sax daanaka amal ko affaire bi daal mu ngi noonu <laughs> kaa bu ñëw rek nga di bii la way waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di ziar Mouhamed mu fekk ci buntu bi Fatou Lo waaw ah, gis nga de biir kër des femmes bëri na liñ ci mën a waxtaane monsieur le maire moom jànq bu wóoru ba pare teg ci Abdel tamit keroog est ce que nekkul na dafa bëggoon a violer ummi kii kay aji dafa mel ni ku ko bëggoon a violer te boo moytuwul <tsk> dina ko violer. sénatrice bi moom dafa war a feeñ ndax ay def-defam yu ba moom mu ngi bëgg a yàgg dafa war a feeñ et ça mënu koo feeñ parce que bu ko feeñalee ñoom tamit ñu dugg prison. ndax affaire mallette beeg ay yeneen yu fi amoon ak yooyu yëpp ñoom la mu nekk affaire bu garaaw boo xamante ne tiire na ko sax xëy na yàllaa tudd ab deewam rek mais tiire na ko parce que nee mu toogee mu ngi xalaat ne rey na ko dégg mu koy naa demal nga ñëw faj mi yu kenn xamul mais sénat télé bi comme lu BBC wax rek Aïcha comme mu wax rek ne kii wóoluwuma ko te boo moytu aana tamit mooy loolu daal aana tamit boo moytuwul. te mu waaw waaw Ahmada gis nga de brigade des femmes de moom moo fi dawagum nii ma ñu ngi lay ziar brigade des de bëri na ci mën a wax ndax xam naa ni daal monsieur le maire ak bi daal ñoom ñaar daal moom mooy lool boy ci dikk na ko maa leen gën a xotteeku hmm? am na solo lool nag hmm? ñee nag. jaaxle nañ torop nag ne woon naa leen kii duñ ko rey ñu tudde sax waa ji du ko rey amoon naa ne du ko rey parce que bëgg na ko ni mu ko waxee noonu nag dama doon wër boobu ba léegi gisuma la du ko rey te Zahra tamit xam naa ne xol bu rafet la yore ndaxte journaliste bi moom moo ko yàq xolam nag moo ko def loo ji fi bànni ndax nit moom bu la yoree na def ci jikko boo xam ne boo defu teewul rek da nga am jikko bu bon boo xam ne si moo lay dugal lépp loo nekk xoola kooku xarit bi xam na ni moo ko dugal lépp te mu ngi noonu di ko rëccu mu ngi bu baax a baax a baax waaye siyaara moom wërta mën a deewee noonu day yomb il faut que mu toog leeral mbir mi ba leer ndax euh, scénariste moom mu ngi noon gëmloo ñoom aana ci lu nekk waaye Aïcha moom comprendre na ko bu baax Aïcha moom teere ci moom moom bu moy tugut mooy dugg prison ndax li mu def lépp il faut mu dugg prison moom moom moom il faut mu dugg ko te bu waajooju moo koy feeñal waaw te dëkkali astel bi moom kii dëkkal maan dëkkali astel bi ajeek kee moom mooy loolu commencé na moom di dugg ci kenn xamul détail yoo xam moytuwul dana ko provoqué na ko waa nag maa toppoon naa ma dama nopp dama tuub te instant sa jëkkër yi mag laa instant bi sa mag dee na nag war nañoo mën a nekk waa aji moom xale rek la dina naan xelam moom xam naa ci loolu ku mënta naan xelam kay mooy astel waaw astel daa xam ne moom mënta naan xelam astel mën na ci taxaw lépp yu man moom laa ragal ne moo koy feeñal. maaleykum salaam bakki jàmbur ñu ngi lay fay nuyoo tox ni yàlla na yàlla nangu ziar di la jégg lu bare bari noonu la àdduna noonu la yenn saa yi da ngay ñàkk tam ab temps rek baaxul ci doomu Adama Njaay noonu la jibi ñu ngi lay fay nuyoo yow di la ziar Ahmada ñu ngi fay nuyoo lu bari gis nga de kër gaa ngi ni def wéetam di ko ma mag waaw série de xaw naa gëj am ku mel ne Golden moom gën naa am waaye mag moom daw na keroog waaw brigade des daw na barki dem moom it mën nañ cee waxtaan wala tey jii tamit xëy na tamit golden am moom na am ndax golden man du may gis publicité mooy may problème duñ dugal bande annonce waaw Ahmada waaw li nga wax dëgg man de aw ma ko ndax télécharge yow ko dama kaa seetaan noonu na après ma daal di bàyyi télécharge yow ko ah Mouhamed Diop nan nga wax nga dëgg Muhammad de dàq bàjji bi nag noonu la yaay borom weer bi ñu màggal nii rek démb noonu la noonu la wax ay jiiso affaire yooyu noonu ah may sama na ko yaay borom weer bi ah mais dindil boobu dindil boobu def Mouhamed Diop noonu la parce que sama numéro numéro yi dafa yu ma ma yu ma ñàkk moo tax am na yoo xam ne dama adressé woon tur naa loolu moo tax euh, affaire yi xaw ma jaaxal nii moo tax bi ma déggee ma mi baa bàyyi moo tax ma ñëwaat jaar si encore mais noonu la mais Fallou maa ngi lay dégg bu baax waaw incha allah waaw loolu loolu xam naa man sax peut-être dama ko seetaanoo mais bu ko seetaanoo incha allah yóbbu traay dugal ko waaw ah, ok rafet na noonu la. Sénégal 4 TV yow yaa Pour ne mën na Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever.